assalamualaikum warahmatullah rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bax di wax dañu dañoo ñëwoon fii ci frontière bi am fi euh, aéroport bi am fi problème bo xamanteni ñun wax deug yalla lepp luñu wara def def nañ dag dag nañ suñu test Covid waaw bu volable dem def suñu laissez-passer dem suñu consulat Sénégal Dakar euh, Casa def fa suñu def fa suñu laissez-passer bu légal ñu ñu ne ñu envoyé nañ ko ci euh, aéroport bi dag suñu billet ñëw ba fi ñu enregistré ba wara dem vol bi ñu ñu mënu leena dem ndax seen message yi ngeen envoyé woon consulat bi indiwut l'espace yi ak siwut loolu moo ñu fii ba ñoo fii instant bii nekk ñu ngi koy dagaan nag képp ku ci mën a ko képp ku jot ci vidéo bi na ko àggale te xam ne ñun fi ne nii dañoo am problème ci lépp lu ñu war a def def nañ ko ay doomi sénégalais lañ waaw plus de ñu ngi fii am problème munuñoo dem mënuñoo dikk te te ñi fi nekk nii ay njaboot lañ yor ñii soxna yaa ngi nii ay ay ay doom tout tànk lañ yor Sénégal nekk si voyage loolu lu gën a métti amut ñun suñu njiit yi sénégalais dañoo war a taxaw wax li nga xamante ne nii moom moom teg ñu ci yoon quoi fi ne nii ñun ñoo ngi nii ci aéroport bi fi ne nii waaw te bii avion boo ko boo ko daggee léegi man dinaa leen bàyyi sax jox leen benn femme soxna si mu wax leen moom itam ay lim ci xam. Ah, euh, euh, depuis 8 heures ñoo ngi fi léegi enregistré nañ ba pare suñuy bagage tout dem nañ ba ci police bi euh, parce que police moo ñu war a tamponeel bu ñu tamponalee après ñun desul lu dul ñu embarqué problème bi mooy police mënuñoo embarqué parce que suñu laissez passer dafa am problème parce que dem nañ consulat def suñu laissez passer 15 jours avant avant suñu vol. léegi le 17 août lañ def suñu laisser passer mais police yi fii aéroport bi passer bi Woté nañ consulat wo nañ fu nekk ñu wax li ak la bañ suñu vol. lan moy solution. solution bi moy dañoo ont ñoo ngi ñuy top. Wara dem vol suñu vol raté nañ va et vient lo mais suñu ne ci dëkk bi consulat bi nekk fii woote nañ ba sonn affaire bi réglé wul te ñoo ngi nii ñun lenn lañ soxla dañoo bëgg voyage ñu trouvé ñu solution ñu voyage ñun loolu lañ soxla soxlawuñu waaw kon xam naa soxna si kon ñu jël sama jëwriñ ji bu ko defee ndax si mu ne nii wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñoo ngi fii ci aéroport bi démb ba léegi waaw boobu léegi ñu ngi ci aéroport bi.

déposé récépissé la boo nee ma lii rek depuis le 16 ba ñëw fekkee ñu naan ma loolu laissez-passer bi ñëw ko c'est un contrat mais deuxième chose naa ne wax police na noonu constat booy envoyé laissez-passer constat bi nga wóor ñu envoyé nañ ko naa mais ñun lan mooy suñu problème lan mooy suñu problème ñun Sénégal lan mooy suñu problème ba suñu doomu dëkk ko munti génn foofu ko daj gën a nga doog mu ñibbi Sénégal mais lan la waaw maa ngi jégalu baax a baax na si kàddu xaw naa diis trop maa ngi jégalu di wax na solo waaw sénégalais yaa ngi nii toog. ci suba ba léegi ñoo ngi fii ñu bi ne en tout cas sénégalais yaa ngi nii toog quoi vraiment plus de vingt personnes ñu ngi nii toog vingt personnes dagg billet normal. dem def seen laissez-passer déplacé te ñëpp dëkkuñu Casa ci capital bi am na ñoo xam ne ñu ngi jóge dëkk yu sori ci Maroc ñëw dagg ji ñu bëgg ñoo euh, jiitloo nii quoi xam nga lii lii métti na léegi nag xoolal ñuy ngi lancé appel autorité yi képp koo xamante ne nii war ngaa mën a réagir rek nga réagir quoi waaw kon baax na jërë ngeen